ci dibeer ji lañ door caravane bi waajal Magal Touba édition 2019 muy caravane boo xam ne ren ji ñu ngi ko dooree ci kër Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké nekkoon kenn ci doomu Cheikhul Khadim yi mu gane àddina ci atum 1891 ci Touba Mbacké amoon tawféex di doom Serigne Touba rek bi nga xam ne moo gane àddina ci dëkk bu sell bi di Touba. bi ñu ñëwee ci guy mbind fekk fa xalifaam di Serigne Moustapha moom Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké mu ànd kook njaboot gi ñu leeral ñu dunduk Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké kon bërëb bi. bërëb bërëb la boo nga xam ne eh, xëy na dana gàtt ndax ndax ndax ndax fi leen war a dem yëpp bu ku ne waxee lu baree bari duñ ko mën a dajale ba mu nekk dara waaye pour résumer ko rek bi Sëriñ Baara di jóge di jógee Daaru Xuddoos di sanc fii dañoo wax ne ku fi bay de mu ñëw sanc dëkk fii ba ba melal ko nii mu mel ba mu fi bàyyi ko itam eh, Sëriñ Moodu Baara wóotu ko mat ko sëkk di sëtu Sëñ Tubaa bi mag ci sëti Sëñ Tubaa yu góor yi sëñ Mourou Baara doon ki ci mag te xam nga sëñ Baara magul ci njabootuk sëñ Touba waaye sëtu sëtu sëñ Touba bu góor bi mag ci sëti sëñ Touba sëñ Baara ko te magu ci loolu nekkaat beneen miracle ba nga xam ne yàlla mayoon na sëñ Mourou Baara itam amoon nu mu mel adduna sépp xam ko ñi ko fekkee xam ko Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacke bàyyeekoo fii le 18 juin 1936 ci Mbacke Kajoor bi mu am ñeent fukki at ak juróom rek moo du Bara njëkk ko wuutu ci xalifaam liggéey fi liggéey bu am solo ba ni mu agsee ci Serigne Cheikh Sidil Makhtar Mbacke mi nga xam ne doonoon na fi xalif général des Mourides liggéey fi liggéey bu yaatu lool. Serigne Bara moo ko moom soo ko defar geneen kërug boppam moom la ko boppam waaye kërug boppam la jël jox ko Serigne Bara. yëmut ci loolu ba mu demee Ndakaaru itam mu jënd fa kër presque ci ci ay nangami téeméeri daal di wax ni kër gi itam sëñ Baara kon moom digganteem ak sëñ Baara ah euh, taw féex itam mu defar fa kër gu gu raw yooyu may wax wax ni sëñ Baara kon ña ko jiitu woon di sëñ Modou Baara lañu fi def ba dem sëñ Abdou si ñëw def ko ba dem moom itam bi mu ñëwee bay na ci aw laajtam jëf fi ba àdduna gis li mu jëf wacc ko fi dem ndax naal wii jàkk ji fi toje man ñii la ko doon. Euh, jumaa ji man mii la ko doon taxawloo jàkka ji ñu fi taje doyoon na sëkk waaye daf ni sëñ baara yelloo na leneen lu raw lii njabootuk cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke rafetlu nañ lool caravane bi nga xam ne ñëw nañ ci guy mbind li tax a jóg caravane bi sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadir indi na ci leeral bi ñuy tudde wala affaire cheikh ne ko sëriñ Fallou waxe léegi muy loo xam ne ba ñu ko tàmbalee léegi yàgg na liñ ci jub jubluwaay bi nag weesuwut topp jeexiti sëriñ Touba ndax sëriñ bi fi jaar dafa bari ñim am lante dafa bari ñi ko topp itam seeni jeexee dafa yaatu kon ñett seeni jeexit ñett li jeexit sëriñ Touba moo tax nag ngir màggal gi xam ne mooy dajewukaay jul ji ak taalibe yi moo tax ñu xalaatoon at mu jot at ñu tànn génn fànn wala benn gox ci réew mi. caravane Magal Touba édition 2019 bi daañu def dëkk yu bëree bëri diirub juróom benn fan ñu jël yoonu bawol bi ba daañu laalaale tuuti ci Kajoor.